li ci yéen kaay yi El Seydou Ndiaye daal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo jamono ji nag réewum Sénégal gannaaw élection yi nga xam ne daal moom la ñu génn waaw maanaam bàcc yu métti yi nga xam ne daal moo amoon ci élection yi nga xam ne daal moom la ñuy génn Idrissa Seck nee ma ndaamal Kajoor moom nag jamono ji dafa mel ni kuy doog a yeew waaw dafay doog a ximmali ko yàgg ba léegi tekk tekkaaral gi nga xam ne daal Idrissa Seck moom la nekkee woon génn na ca moom ndaamal Kajoor démb kay mi ngi doon amal ab janoog taskatu xibaar yi gannaaw loolee ma nga cee xam ne ne élection yi nga xam ne daal moom la ñu génn ci réewum Sénégal moom Idrissa Seck fa mu taxawoon démb fa la taxaw tey ma ngay xam ne nag ne jamono ji élection yi nga xam ne daal moom la ñu génn ci réewum Sénégal deuxième tour wóotoo na mën a ñàkk ci élection yi ñu génn waaye nag jamono ji maanaam daal élection yi ak njuuj njaaj dajaa am waaw maanaam daal Macky Sall dafa doxalee nu ko neexee ci élection yi nga xam ne daal moom la ñu génn ci réewum Sénégal bu dee nag sénégalais yi ma ngay xam ne ñi nga xam ne daal ñoo di sénégalais yi daanaka daal maanaam daal seen tànneef dañu ko salfaañe moo di ak coppite maanaam tàggoo nguuru ji nag ay doole gu metti gi nga xam ne nag moom la Macky Sall nekkee Idrissa Seck di ñu xamale kay xam ne kay élection yi nga xam ne gaal moom la ñu génn Idriss Seck kay dëggal na li mu waxoon muy deuxième tour mun ta ñàkk enquête yéen di ñu xamal ne kay jamono a wax waaw Idriss Seck di ne topp joogee bu na foo xam ne bu ñu boobee mën nañ koo tay nag xel xalaatu ñu cay teew yéenikaay bi di l'observateur di ñu xamal kay jamono ji nag keneen ki nga xam ne nag maître Madické di ñu xamal kay nga ko bàyyi lu ni mel moom Abdoulaye Wade nag dafa mel ni mbir yooyu da caa dellu ginnaaw ndax tey jii la gën a taxaw daal di dëggu ngir yolooy poste boobee nga xam ne maître Madické naa yoroon na ko ñu daal di koy fës yéene nangu ci moom maître Madické Niang nag mel ni ku leen di yombala liggéey ba ndaxte delloo poste boobee nga xam ne bi dañu xamal ne ay mbiram ci ay mbiram jamono ji Abu Dhabi waaw ngir fas yéene faa dallu yéene bi di xam ne Abu Dhabi géew gi nga xam ne fa la nekk jamono ji nag loo xam ne mënees na koo sént ci réewum Sénégal waaw maanaam boo xam ne dina ko xam ne ma ngi ci Abu Dhabi turbine yéene kaay di yéene kaay bu gànkay dani gi di ñu xamal ne réewum Sénégal jamono ji nag lépp loo xam ne nag jëm na ci àq yelleefu doomu aadama ñi ngi koy a ko faa gën a salfaañ gannaaw ak xam ne ñi ko jamono ji réewum Sénégal lépp loo xam ak fu doomu aadama dañu koo salfaañe delloo ko ginnaaw te ñi nga xam ne daal ñoo jiite réewum Sénégal dafa mel nag mbir yi da leen futlaalu fekk leen ma ci direct info yéen bi dañu xamal ne nag gannaaw xam ne daal dañu koo faatoon ci Angleterre jamono ji nag mbir gi police réew ma bu yàgg ba léegi mu doon doon topp lépp loo na ci mbir moomee ak lu ni mel yéen kaay bi dañu xamal ne dafa mel nag mbir yooyee ma ngay gën di leer waaw ndax yéen bi mi ngi xamal ne yi nga xam ne nag moo defoon jëf ji ñaaw joojee muy Moustapha Dia yéen kaay bi dañu xamal ne jamono ji yoon teg nañu ko loxo ba ay mbiram balaa yàgg dina féete boor Elhadji